jëfati ci ànd bi ak télévision Futur Média dalee nag jàmm ci xibaaru marax mi ponk ya ca gën a fës tey ña nga woon uh, ci avenue Doudou Ndiaye Coumba Rose takk woon lool bàyyi ko ci secteur yi wuute ngir wax lu leen naqari bokk na ci waa collectif uh, des régies publicitaires agents yu CTE ay agent Transplace ñoom ñëpp nag ku ci ne wax nga lu la metti wuy si woote boobu waa Yanamar FRAPP ak nitu dëgg woote lañu ñu àndandoo uh, wax ko mànkoo ko te ñu ne mooy li am mooy yoon dafa jeng ci euh, Sénégal wàlluk yoon woowu sax ba nëgë ni bare na ñu jàpp ni dafa euh, jeng gis-gisu kii la tamit euh, xam-xamam màcc ci lépp lu soxal wàllu àq ak yelleefu doomu aadama muy nag Alassane Seck bu Ligue sénégalaise de droits humains moom la mu seetlu tamit mooy yoon tëddeewul njaaxanaay fii ci Sénégal te itam àndul ak li tukkee ci njiital Union des magistrats bu Sénégal mi wax ni dossier yëpp la ñu yemale beneen ponk ci biir xibaar yi muy facture yu ndox yi nga xamante ne euh, cher na ba jéggi dayoo askan wi ñu ngi bëgg a dee njaboot it naka noonu kenn xamul lu ko waral lan moo tax facture yi yokk ñoom jàpp nañ ne sax ne nag la ñuy jëfandikoo euh, ci ndox daal daanaka yées na euh, li nga xamante ne nii moom la ni fay la ni fay ëpp na ko fuuf waa seen o ñoom la ñu joxe rek ci wax moo dina nag clients yi ñoom ñooy jëfandikoo ndox mu bari ñi ngi waajal nag bëccëg bi ñu jagleel migrants yi ci àdduna wërngal këpp lépp ñu fas yéene ko màggal ëllëg moom ca diwaanuk euh, Saint-Louis la ñu ko fas yéene euh, màggal waaye li nu xayma nag ci doomi Sénégal yi nga xamante ne dañuy ñàkk seen bakkan euh, ca bitim réew daanaka booy xool at mu ne ñaar fukk ak juróom dinañ faatu bu ñu ñàkkul seen bakkan ci géej gi lu bon bon dina ci am ñoo xamante ne dañ leen di faat ñu ne nag weer wu ne daanaka lu toll ci ñaar dinañ ñàkk seen bakkan ci anam yoo xamante ne anam yu metti la waa Horizon Sans Frontières ñoom ñoo seetlu loolee ci jamono jooju ca diwaan Ndar it ñu ngi koy waajal ni ma ko waxee muy bëccëg bi ñu jagleel euh, migrants yi euh, tax na ba tey lu ko jiitu nag ñu amal ab bëccëg boo xamante ni ñu ngi ci doon julli xalif général des Mourides yabal nag ab délégation bu takku foofee ca diwaanu euh, Ndar ngir ñu fàttaliku ñi nga xamante ni ñoom ñoo làkku ñu leen doon leen ñaanale ca mosquée Mouride bu nekk ca diwaanu Ndar mbokki ponk yaa ngi nii bu ngeen taaxee la tuuti ñu faram-fàccee xibaar yi. daleen ak jàmm ci xibaaru uh, marax mi ni ñu ko waxee woon nag ci ndoxteel yi uh, tey bari na woon lool askan wu uh, takku bàyyeekoo ci secteur yi wute nag joxante daje ci avenue Doudou Ndiaye Coumba Rose ngir wax nag li leen metti ci réew mi lañu ñu fa yëkkati ci kàddu nag bokk na ci yoon fi mu ne nii nag mi ngi jeng loolee la ñu seetlu collectif des régi publicitaire agent yu yi ak ay agent Transplace ñoom nag ñoo fa nekkoon wuy si ci woote Yepp Y'en a marre France euh, FRAPP ak euh, nitu dëgg leeral yeeg Aminata Mbaare Sow moo di Diop laata ñuy euh, tàggatoo lu soxal wàllu yoon woowu ci la ñuy euh, des euh, ndax dañu jàpp ni fii ci Sénégal nag yoon dafa tëddeewul njaaxaanaay Ligue sénégalaise des droits humains moom moo gisee noonu njiit la di Alassane Seck nag daal di ci yëkkati ay kàddu di wax tamit nag ni ni njiital Union de magistrats bu Sénégal di doxalee moom àndu ci ak kàddu yi mu yëkkati ndax dañu jàpp ni dossier yëpp nag ñoo yem ci wàlluk yoon te loolu prison euh, wala boog sax Ligue sénégalaise des droits humains leneen la ca wax ñu teew lu ci Alassane Ba ak Pape Sangone mbay ci leeral. léegi maanaam daal rek dinañu am ñu am na nañu conscience am na nu daal yëg ni jot na suñu Ligue sénégalaise jóge ci wax waxu politique waxu social di di jëf jëf mooy dañu ne deret dafa manqué CNTS ñu waxtaan ak ñoom ñu leen daan jéem ci suñu kattan. fii ci Fann ok def benn appel pour don de sang naam am nañu chance sax ba ñu bëri dégg nañu yëg nañu ñëw nañu donc vraiment dañ ciy sant yàlla bu baax di gën a encouragé nag jeunes yi population surtout les jeunes ñu mën joxe effort boobu di ko joxe deret parce que deret dafa nekk xam ni du mën a ci nit. donc te nit ñi da nga koy soxla bu baax a baax depuis koor gi ak bi dafa amoon manque de sang ci CNTS mooy centre national transfusion sanguine donc vraiment voilà mi ngi nekk muy suñu njëkkeelu euh, commencé ci cérémonie don de sang maye deret ñu ngi soog a commencé pour la première fois ci FAROC ci suñu ligue sénégalaise des droits humains mais yaakaar daal li ñuy préparé waaye yi di ñëw fekk ay ñeenti weer juróomi weer dañ ko préparé dina yaatu ba ñëpp mën ci xaj joxe seen deret pour le bénéfice des citoyens sénégalais. ay 9 lañ commencé ba léegi macha allah luñ luñ si luñ si bëggoon bon je me dis luñ bëggoon si zone bi parce que ça dépend si bi nga nekk parce que am yoo xam ne genre. population bi conscient nañ si njëriñu maye maye deret ñoom dañuy ñëw à ce que ñu ñëw maye pour dimbale ñu ko soxla mais soo nekkee si yenn zones yoo xam ne tamit population bi information bi ñu war a jot suñ ko jotul duñ ko war a jotee duñ mën a duñ mën a duñ mën a ñëw à que ñu def ñu def acte bu noble bi et Euh, ma euh, ñu wax rek euh, ci leneen nag mu aju rek ci ni ñu ko waxee woon nag ci ndoxteel li muy nag wàllug justice bi wala boog dinañ ci dellusiwaat muy Aminata Mbaare Sow ndax sotteegul ñu wax nag ci leneen muy Fatou Oulimata Dia moom ab étudiante la bu faculté de droit bu université Cheikh Anta bu Ndakaaru dañu doon laam-laamee nag ne li ko faat daal bokk na ca jàmmaarloo ya amoon ca université waaye tey ay mbokkam nag. ñooy génn di leeral ne faatu gi mu faatu daal laalewul dara ak la xewoon ca université Cheikh Anta bu Ndakaaru ñu teewlu kenn ca njaboot ga di magam wax na waaye nag nangu la feeñ ci kàddu yi. sama sœur bien avant balaa moo dem elle était parce que man maa ngi gunge sax fajar buy dem jàngi bu muy jàngi bu muy dem dama ne la mool daal sax. mu ne ma dama feebar ma ne ko noo jaru ngee dem kañ dellu fak waaw mercredi ci fajar bi bu muy dem mercredi fajar quoi bu muy dem ma ne ko bu kañ mu ne ma noo bàyyi ma dem parce que damay def examen xaw ma sax ndax day day ndax day def examen chaque fajar maa ko gunge mu jàngi waaw. léegi après fi may liggéeyee si lañ ma benn copain bu tudd Fallou waaw moom moo ma safir laa dama envoyé message ne ma euh, sa sa moo ngi Abass Ndao waaw léegi si si si la ma ne euh, sa yaay bu soo ko mu ne woo mu mu ñëw ma woo maire bi ñu ne ma maire bi mooy ñëw par la suite après ma toogaat quelques minutes ma woowaat ko mu ne ma instant bi ça médecin bi xam naa dina ko bàyyi ci kanam si laa ne ko est-ce am nga compte Wave mu ne ma waaw après si laa ko si laa ko envoyé xaalisu li xaalisu taxi bi bi ma wàccee ay 22 heures. laa laa ma fekk ci néeg bi muy muy muy naan ay garab moom ak yaayam toog. andi nañ ko ba si kër dara jotu ko muy ay toog toog noonu toog noonu ba ay vingt-deux heures mi man ma dem dugg dugg tëdd tëdd même pas quelques minutes après si lañ si la ma sama sœur bi keneen ki keneen ki Binta ne ma euh, sarax bi dem na quoi. Songo Ka na Thierno Laurent Mendy ñoo tataan euh, kàddu ya ñu àddu nag ci fonction euh, publique ak euh, anam yi ñuy jëlee kon liggéeykat yi nee nañ nag daal teguwul ci yoon ndax dafa mel ni daal nu neex waay doxalee ci recrutement boobee njiitu réew mi Macky sàll moo waral nag mu sàkku rek ci ñu xoolaat yi fi gën a soppar ñiwaat administration bu Sénégal jaarale ko nag ci xarala yi ci jamono jooje mbootaay gi nga xamante ni moom moo ëmb professionnel yi ci wàllu ressources ressources humaines ak nag kuréel gi ëmb ñi am li jaasa ba noppi amuñu am xëy nee nañ lépp nag li ko sabab bokk na ci ñàkk tàggatu gi te li gën nag mooy stagiaires yi nañ leen di tàggat bu baax a baax waaye tamit léeg-léeg euh, politique dafay lalu ca suuf leeral yi Habib fay ak Jafara Ba anam ba ñuy recruter nit ñi ci fonction publique bi doon jàngat gu njiitum réew mi def te itam ñaawlu ko gannaaw ba muy jébbal ay raaya ca palais de la république doomug réew mi mbootaay gi ngànk sénégalais yi liggéey ci wàllum ressources humaines ñoom la ñu gis ni mbir mi jaxasoo na lool te itam bëri na la ca manqué lu bëri loo xam ne ci biir fonction publique bi ba sax boo seetee wàllum politique da koo rax. Euh, le 12 avril 2019 di ñaawtu recrutement yi am. fonction publique bi nga xam ne ni jël ay militant jël ay turandoo jël ay dëkkandoo xam ne ministre de la fonction publique ak ñëm nekkal loolu ñu nekkee mais loolu noonu jógee ministère de la fonction dem ci société nationale yi jógee ci entreprise publique yi fépp foo xamante ne te état moom moom moo fay joxe liggéey euh, par parloo dafa am kumba am day kumba amul day jël nit ñoo xam ne amuñu njàng mi amuñu diplôme bi amuñu xam-xam bi ñu dugaleen moo tax tey këyit war a génn ci semaine dina toog ñeenti weer balaa moo génn bi dafa tar parce que am na impact politique parce que am na impact social commencé en mars waaw recrutement politique yi euh, parce que dañoo bëgg a calmer kii mais c'est des solution nga xam ni elles sont court-termistes du wëy du wëy am na ay sociétés yu bëri actuellement nationales yi nga xam ni ñu ngi am ay jafe-jafe yu bëri parce que dañoo am ay nit yi nga xam ne non seulement defuñu liggéey bi mais ñu ngi leen di fay te société bi soo deful nag day waaj tëj waral na itam ñu ne bileeg mbir faaw rek ñu xool ana nan lañ koy recadrer bu ko defee dinañ mën a lijjanti bépp jafe ga nga xamante ne xëy ndaw ñi cala secretaire général bu mbootaay mi wax li te itam di ñaax entreprise yi ci seen boppam ñu gën di tàggataat ñi nga xam ne ñoo di stagiaires yi. investissement de base bi ñu doon def ci jeune bi jar na ko mais aujourd'hui ñu ci benn àdduna bi nga xam ne déjà CDI contrat durée indéterminée bëreetul ay CDD na ñuy def. contrat durée déterminée wala ay contrat de prestation de service wala intérim donc entreprise yi léegi dañoo bañ investir ci ay jeunes yu bees da ngay gis xale bu ñëw bëgg am stage wala am liggéey ñu ne ko non non boo bëggee liggéey bi il faut nga am deux ans d'expérience mais soo mësul am une première expérience nag ngay mën a am deux ans d'expérience. ca atum 2018 quotidien l'observateur bu tey bi di xamle ne lu toll ci. téeméer ak fanweer ak juróom mi junni ci ay agent ñoom enregistré nañ leen ñel seen wàllu masse toll ci juróom benn téeméer ak juróom ñett fukk ñett milliards ci suñu koppar li ko dale ca atum 2022 jàpp atum 2024 li nga xam ne moo di crédit personnel bi daa dem comme ni mu tëddee 952 milliards ci atum 2022 1140 milliards ci atum 2023 1124 milliards ci atum 2024 maatam debout nag ñu ngay yëglu euh, ci ab euh, chantier mosu xool université bu euh, maatam bu président Macky Sall diggee woon ca diwaan ba am na nag lu ñuy ruumandaat tukkee ci ñenn ña ñu ne nag président daal dafa am leneen lu mu fas yéenee doxalee ci université boobu mu mel ni kon du ko bëgg a génne tabax ko rek feneen fu dul ci biir Matam moo waral nag waa mouvement debout ne du ca dal tey soññaat président Macky Sall ne université boobu nag kenn gënu leen caa yey kon dëkk ba Demba Dem bokk ci mouvement boobu ñu teewlu ko ci micro Ibrahima Kane ak Amadou Ba. dafa am ñi nga xamante ni ñooñu ni leen mën a tuddee mooy ay comploteurs mën lañ leen jàppee tam ay politiciens. Euh, dañoo taxaw nag ñu ne ñoom président de la république dafa juum euh, université bi mu jël pour jox ko waa Matam foofu dafa juum ko waxaat aussi doomu Matam yi yelloo wuñu li ñoom seen doom yi ñoo gën a yelloo université bi. léegi nag pour xam naa ba gën a defar compromis bi ñu ne nag léegi dañuy avancer rek ñuy wax leen ni dañoo amul suuf que di leen wax ni nag dañuy laaj président de la république Macky Sall mu rappeler à l'ordre ces politicien ces completeur contre la commune de maatam pour mu wax leen ni ñu bàyyi waa Matam moom li ñu li ñu li ñu kii seen université léegi nag mise à mort bi la ñu bëgg def léegi nag dañuy jël aussi les Sénégalais à témoin te di wax Macky Sall na leen rappeler à l'ordre ba pare nag du ci yem dafa war a produir benn décret buy wane ni il a clos ce débat là université bi maatam rek lañ koy def duñ ko def feneen exclusivement maatam lañ koy def niñ ko waxee woon ci euh, ponk yi ak ndox meeg facture yu cher ba euh, jéggi dayoo askan wi euh, jaaxle laajub samp ne lan moo xew ndox moo yokk wala waa seen o ñoo nekk di def nag lu leen neex ndax dañu seetlu ni lañuy jëfandikoo ci ndox daal néew na ni facture yi ñuy fay Sen'Eau nag ñoom li ñu wax rek mooy ñii di consommateurs yi nag ñoom ñooy jëfandikoo ndox bi tax seen facture nag cher lool Mouhamadou Lamine Fall Younous Diatta ak Gervais coowal Sen'Eau mi ngi woy ba tey ginnaaw bu kuréel bii di forum social sénégalais naqarloo yorin bi nga xamante ni moom lañ yore ndox mi te ji nag askanu Sénégal ñoom ñooy ñaxtu ak joytu facture ndox yi nga xamante ni cher na te saa su ne kuréel gii di o ñëw di leen ko jébbal. man bi ma dëkkee fii ak léegi bi Sen'Eau ñëwee daal la facture yi gën a tar et je sais que je ne suis pas du man kese du man kese nak ci situation boobu askan bi ñëpp a je suis sidéré par ce qui se passe moo je peux pas payer man nit kese cundung si biir kër cundung laa la wax di de man kese gis nga ma man kese nga fi fekk je suis seul su ma génnee le matin huit heures laay génn sama kër du ma duggaat sama kër lu dul trois heures du matin quatre heures du matin donc je vois pas fan laa mën a lekk naa ne dox boo xam ne ou bien fóote wala demee toilette walla euh, bale wala fobeere si loolu quoi je vois pas je sais pas loolu rek mooy sama problème au fait ak waa Sen'Eau. facture yi moom dafa cher da daan fay ay cinq mille 5000 4000 léegi nag ñu indi mille jox la nga ne lii de cher na duma ko fay naa dem seeti ko beneen facture ñëw indi ñëw cinquante 50000 loolu c'est pas normal. facture yi ñëpp koy jooy dañ koy yokk yokk suñ triplé waxuma doublé dañ ko triplé a ah, problème bi kenn xamul lan la kenn xamul lu tax ñu yokk ko kenn xamul lu tax yokk ko. am na ñoo xam ne ay cent et quelque lañ leen indi ñu ngi nii si koñ bi dañu mujj jël seen compteur ay cent et mën ñu ko fay. Sénégalais yi ñoom nee nañu d'accord ñu benn yoon ci facture yi nga xamante ni dafa cher te ñoom sax dem nañ bay jiñ kuréel gii di seen Sen'Eau ab càcc. mënuñu ne xamuñu ko tout le monde crie tout le monde râle mënul ne xamuñu ko et même je même plus loin jusqu'au syndicat ñu nekk si biir seen o syndicat lu ko taxoon a jóg mooy. jafe-jafe yi askan bii di dund xëy na ñoom jotuñu facture yi même bu ñu jotulee facture yi nañ leen gis nañ leen dégg mais on n'a jamais entendu ce syndicat là se prononcer si yooyu musul am. mu mel ni sax askan bi dañoo rëccu lii di SDE mu di kuréel gi fi nekkoon doon yore ndox mi ak itam doon jébbale ay facture ndox yu tolloo ak seen poche. ak avec la SDE sama facture mosul weesu 3000 bi seen o ñëwee première facture bi. am na jox nañ ma 3000 et quelque mais après première facture bi facture yëpp a jox nañ ma 28000 ñu indiwaatal ma benn facture 44000. Sen'Eau nag moom d'accordul benn yoon ci tuuma yi nga xamante ni teg nañ ko ci kawam ñoom sax dañoo jàpp ni tey jii ndox dafa gën a am gën a bëri ak itam pression bi dafa gën a am doole. ndox mi prix bi yokku liñ fi yor ba léegi bi état bi définiroon par décret nañu lii ngeen di facturer clients yi loolu la ñuy continuer appliquer ba tey li yokk par contre mooy ndox mi ñuy joxe moom yokk na lu bari déjà daaw rekk bi euh, seen eau doogee ñëw am na ay travaux yu mu defoon euh, moom ak l'autorité délégante SONES yokk ndox mi ñëw Dakar bés bu nekk 40 000 mètres cubes ak lu ci mënti am facture ndox yi métti na bu baax ci askanu Sénégal facture yoo xamante ni ñoom xamuñu fan lañu ko consommer ak itam na lañ war a def ba mën koo fay. waxoon nañ ko tamit euh, ci euh, ponk yi muy bëccëg bi ñu euh, jagleel migrant ci àdduna war wërngal këpp lëkk lañu ko fas yéene màggal ci aser gi ca diwaanu Ndar lay doon waaye taxaw seetlu dafa am ci doomi Sénégal yi faatu ca biitim réew ñu ne ñaar fukk juróom daal booy seet ci doomi Sénégal daanu faatu rek ci àdduna bi ci bitim réew li ñu seetlu mooy itam weer wu ne daanaka ñaar dinañu faatu dañ leen di rey wala boog ñu deewee ci anam yoo xamante ne anam yu doy la ki seetlu li nu mel nag di horizon Euh, sans frontière ñoom ñooñu nag di sàkku ni wax nañu tekk ab ministère boo xamante ne nii li koy tax a jóg dëgg mooy wàllug euh, migrants yi Pape Fara ñi ngi Pape Sangone mbay lii mooy list doomu Sénégal yi nga xam ne faat nañ leen wala ñàkk nañ seen bakkan ci mbir yoo xam ne ba léegi kenn mënu koo leeral ci àdduna bi ni ki at mi weer wu ne ñaari doomu Sénégal dinañ leen faat ci àdduna bi bu ñu sukkandikoo ci Horizon Sans Frontières. avec euh, doomu sénégalais yi nga xam ni. dañ leen a assassiné wala ñu fekk leen ñu dee ci circonstances yu trouble ci àddina bi muy Afrique muy Europe muy faneen ci àddina bi malheureusement euh, dama wax ni yàlla na fi yem mais ñu ngi ci ñaar fukk ak juróom loolu c'est trop loolu mooy chaque weer minimum am nañu au moins de corps ñoo xam ni dañ leen fekk ñu rey leen wala ñu fekk leen ñu dee ci loo xam ni amul dara lu ci leer fi ëpp tey boo defee la cartographie Europe moo ëpp encore 60 pour cent de ces assassinats ou morts dans des circonstances mu ngi amee en loolu ëpp ñu bëri ci doomu réew mi jamono ji ñu ngi ci prison yi nekk foofu ca biti réew waaye jafe na nag ñu wax chiffre boo xam ne moom moo nekk chiffre exact doomu Sénégal yam jafe-jafe gi yoon ci yeneen dëkk. Euh, amoon na benn polémique sur la question ñu ne leen woon sax il faut recenser il faut recenser sénégalais yi am ay difficultés sénégalais yi nga xam ni tey dañoo am ay problèmes dans les pays d'accueil ñu ngi may woo keroog Brésil di ma ko expliquer naan ma il faut nga ñëw fii parce que plein de sénégalais dañoo am ay problèmes mais amuñu benn assistance gis nga le cas Mbaye Diop ba tey jii nii kenn xamul mu ngi dund wala dee na ak yeneen ak yeneen yuñ may yuñ may yuñ may yuñ may yuñ may signalé. mais malheureusement ñun lii rek lañ ci mën. Modou Thiaw di wax jafe-jafe yi nga xam ne moom la daj ci désert bu Algérie depuis ba mu dellusee ci réew mi sonn na lool ngir mu daal di nag am ci lu mu jàpp. boo demee foofu doo fa am jàmm kenn du la di eh, boo duggee Algérie noonu lañ lay nangu say bagage malmené la génnee la waat la sànni la ci frontière bi boo dikkee dañ lay bàyyeek ooy yéem gouvernement bi amul benn engagement bu ciy jël boo leen contacter duñ la faale. ndax euh, di nga def le tout pour contacter euh, euh, ambassadeur bi mais kenn du la lijjanti boo ñëwee Sénégal jour bi ngay wàcce Sénégal la ñuy paree ci yow même OIM dañuy boo ndax boo nekkee foofu dañu lay proposer dinañ la accompagner dinañ la def nii ci ay formation dinañ leen accompagner ci lii dinañ leen accompagner ci lii. ngir nag fexe toppatoo doomu Sénégal yooyu Horizon sans frontières di proposer ñu taxawal ab ministère boo xam ne li nu mel lay def maanaam jublu ci wàllu migrants yi wala ab agence boo xam ne question yooyu dong moo koy tax a jóg. Pape Fara Gningue lu soxal migrant yooyu sax nag euh, directeur bi ñu dénk doomi Sénégal yi nekk ca euh, bitim réew euh, mi ngi sàkku nag ci kilifa dine yi daal ñu waxtaan ak ndaw ñi bu baax a baax su ko defee nag bu ñu tukkeeti ñu daal di jël nag yoon yu leer yoo xamante ne duñ ca jëlee ay jafe-jafe waxoon nañ ko ëllëg nag bëccëg boobu ñu jagleel migrant yi ca diwaanu Ndar lañu ko fas yéene nag màggale lu ko jiitu tey def nañu fa ab julli boo xamante ni ñu ngi ko jagleel ñu ñàkk seen bakkan ca bitim réew xalif général des mourides euh, yónnee fa ab euh, délégation ñu teewlu ko euh, moom François Gaye directeur des Sénégalais de l'extérieur ci micro Ousseynou Diop. jamono jii nag dañu gis ay xale yoo xam ni dañuy jël ay gaal di dem di jël yoon boo xam ni dafa bëre ay tolof tolof bëre problème ba seen bakkan xaj si may ñaan nag sëñ bi ngeen gën ñu jàppale ñun état. ci liggéey bi ñuy def ndax yoon dafa euh, tukki dafa am yoon dafa am yoon bu leew boo xam ni foofu ngay jaar pour mën a tukki waaye jël gaal dem nekk na loo xam ni lu metti ci ñoom waaye lu metti tamit ci seen ay waajur sama liggéey lu ci gën a metti mooy bés yi nga xam ni dama koy jagleel pour dem jaale ji ay famille mooy lu gën a metti ndax toog gis yaay walla pap nekk sa doom for nañ ko ci tefes bi walla sa doom décédé na mooy lu gën a métti ma ñu dellu wax rek euh, ci ñaxtu gi ñu doon wax léegi euh, te ñu amal ko nag ni ki tey jilee ca rond point Vieux Cinq Fay muy nag ay doomu aadama yu fa tase bàyyi ko nag ci secteur yu euh, wute ngir wax si lu leen metti bokk na ci waa collectif des régies publicitaires ay agent yu CTE ay agent yu Transplace ñoom nag wax nañu li nga xamante ne ni moom mooy seenub mettit waa FRAPP FRAPP moo leen woolu woon Y'en ak nag nitu dëgg la ñu wax tey nag mooy yoon dafa jeng amina Mbaxi Sow ci njëlbeen ab marche la waroon doon waaye ca mujjantal ga lépp fii lañ ko defee ci avenue Doudou Ndiaye Coumba Rose ñii fare ci mouvement Y en FRAPP France dégage wala sax nitu dëgg ñëpp ci ñoom daal di ràngoo ay t-shirt yu rouge loolu lépp nag ngir wane seen naqar ci nguur gi nga xam ni moo nekk fii ci Sénégal. ci seen wet yeneen i sénégalais yu bokk ci yeneen i secteur d'activité ñëwoon tamit wane seen i naqar. ñun dañu yeewu benn bés ñu gis ñu ngi yàqati sunu panneau yi ci corniche bi ci autoroute bi te xamuñu yàqte yooyu lan moo ko waral. donc lorsqu'on bu ñu bu ñu jege see ñakay def ñu xamal ñu ne ñoom waa Descos lañ te dañu dañu jot ay ndigal pour def ko kan moo leen jox ndigal bi kenn xamul fu ndigal bi jógee. kii moo jiite collectif des régies publicitaires si mu toll nii ñu nekk si ay jafe-jafe mu profité ci manifestation bi lee ngir wone seen naqar. dañu ñëw tey jii pour dénoncer cette injustice waaw parce que au delà bu fekkente ne fi Sénégal ñu ngi wax ñenn ñaa ngi wax gouvernement bi ñenn ñi wax lii yaa a des patron patron de patron yoo xam ne dañu nekk ci réew mi itam lu leen neex la ñuy noote seeni travailleurs 32 ans de la ñu nekk da ko dàq suñu suñu suñu dossier bi mën ñu mën ñoo am dëgg. yoon a ngi jëng noonee la ñu tuddee lii di rassemblement bi te waa mouvement Y'en a marre dëgg ak tamit France France dégage bokk ci ñi ko initié liñ ci jublu mooy daal di naqarlu waaye tamit dénoncé agissement yi nga xam ni groupe Sénégal mu ngi koy amal surtout ci wàllu yoon ñu jàpp ni yoon bi dafa am kumba am ndey ak kumba amut ndey Barry Sow mu àndoon ceeg euh, Modou Diop mbokk yi nit sant nañu leen gërëm leen bu baax a baax yéen ñoo ñu fare woon ci machine bi ak ñi jàpp ci xibaar yi bu mu sotti ci kanam tuuti euh, xibaar yi ci 20 euh, daa ngeen ci ànd ak Sara Cissé.